rawatina ñuy waajal dugg ci weeru shahru ramadan di weeru koor di ñaan yàlla sun borom dugal ñu ci ñuy dugg ci bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp lu luñ ci ful lépp lu luñ ci ñaan yàlla sun borom euh, def ko ful ko bokk euh, mu kawe lool sunu njort euh, di ziare bu baax a baax a baax Euh, Serigne Mouhamadou Mountakha Bassirou euh, di ko ñaanal bu baax mu am wér euh, di ko ñaanal itamit mboolem njaboot gi ak ñi nga xam ñoom ñoo di mboolem ñi ànd ak ci liggéeyu kër Serigne Touba bi waaye di ko ñaanal itamit Serigne Cheikh Jëmu Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla suñu borom yi kàttanal ko ba lépp li nga xamante ni naal na ko ci kër maam Cheikh Ibrahima gi mu def ko nu kawe ak njaboot ko waaye di ko ziyaare bu waax moom tamit Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xamante ni Euh, moom it mënuñoo ñàkk jaar ab nuyoo teg ko ci loxo mu àggale ko ci Serigne Mahi Niass euh, bu Medina Baye àggale ko ci Thiénaba àggale ko Pire àggale ko fépp fi nga xam te ba ci Ndiassane euh, Serigne Bekay Bekay Kunta xalifa généraux yëpp yal na leen yàlla may kattan wéral leen bu baax a baax ndax ñooy suñu kenn ñooy suñu ndëkkalaay fii ci Sénégal di leen fàttali rek ne actualité de la semaine moo dellu si waat di leen fàttali itamit ngeen bës abonné ngeen bës cloche bi di leen indiqué di jaar pour abonné yokk bu baax aussi sur tout ce que nous produisons lépp li nga xam te mi ngi fi am comme euh, actualité yi ak lépp lu am comme événementiel vous pouvez les suivre en temps réel sa euh, du yàgg dara di ko gën di euh, man di topp mbokk yi lenn lu ñuy topp ci actualité de la semaine bokk na ci bu baax a baax lu jëm ci li xew di tiis wu metti dal ci Sénégal ña yàlla suñu mi nga xamante ni moom la euh, moom mooy borom kun fa yàkkun te moom moo bind dund bind dee te ala kulli haal kenn ku ci nekk di nga ci jaar euh, te bakkan bu mos dund rek di nga mos dee. Euh, di ñaan suñu borom ñi nga xamante ni jiitu nañ yàlla yàlla suñu borom xaaral àjjana oyofal suuf seen kaw euh, ñu fi des ni yàlla kàttanal leen may leen wér te tënkuñu ci njub ba keroog ñu leen di fekki euh, wante lu ci am solo mooy génn ki nga xamante moom moo di juge Samba Sall le doyen des juges Samba ci démb mu nekk loo xamante ni tis la bu dal ci la famille judiciaire mais tis la bu dal également ci tout le peuple sénégalais parce que képp koo xamante ni nit faatu na rek moo xam ak ku doon dina la touché mais dafa am jàngat buñ ci bëgg indi boo xamante ni gis nañ bu baax a baax les réactions euh, qui sont faites gis nañ bu baax a baax comment les gens ont appris cette triste nouvelle euh, mu nekk loo xamante ni c'est c'est un peu euh, lu doy waar loo xam ne nemmeeku nañ ko ci la la façon de de la perception des choses ndax c'est la première fois mu nekk lu ñaaw Sénégal ab mbokkam doomam génn adduna nga nga nga ngay jubilé wala nga ci am mbégte te loolu lu ñaawlu te dañ ko gis fii ci Sénégal te loolu rafetul ndax yàlla suñu borom Maolana tabaraka taala sax euh, wax na ci képp koo xamante ni ak képp ku mën doon mu dëddu génn àdduna soo mënul seede ci moom lu baax nga maanu ca euh, loolu dafa nekk loo xamante ni allah kulli al kenn ku ci nekk dafa ko war a sàmmonte juste doyen Samba Sall gis nañ la réaction. bi nga xamante ni am na ci par rapport ak euh, li nga xam te moom moo di euh, taxawaay Guy Marius Sagna taxawaay Guy Marius Sagna boobu rek ça également euh, être un signal parce que Guy Marius Sagna bokkut ak moom diine Guy Marius Sagna trois mandats de dépôt am na ko ci kaw juge Samba Sall moom moo yoroon dossier Clédor Sène Clédor Sène moo yoroon dossier également Assane Diouf euh, gis nañ également kii di Moïse euh, Rampino mi nga xamante ni def na ay seede par rapport ak le juge euh, Samba Sall kon yaakaar naa tey jii loolu rek gàccal na ñi nga xamante ni tey jii ñi ngi yëkkati seen loxo ci lu ñaaw nit faatu nga koy ndamoo ndax ku nekk xam ne ne l'appareil judiciaire c'est l'appareil judiciaire qui est manipulé parfois mais pas les personnes qui l'incarnent souvent il y a des personnes yoo xam ils sont euh, elles sont dignes euh, dañuy rester dignes jusqu'à leur euh, leur dernier souffle gis nañ bu baax a baax euh, le juge Samba Sall li Guy Marius Sagna wax ci moom que euh, sans rancune euh, amul dara lu mu lu lu mu lu mu lu loo xamante ni téyel na ko ko te malgré que ak trois mandats de yi mu jaar ci moom te neen en 2019 la ko njëkk a xam kon Guy Marius Sagna tey ji taxawaay bi mu am wane que ni euh, moo tax c'est quelqu'un koo xam ne dañ ko war a bàyyi xel parce que c'est un vrai patriote loolu mooy patriotisme nit da ngay euh, être véridique nit da ngay nekk koo xamante ni da nga fa am ay conviction yu lay yëkkati mais pas que ngay bañ la personne c'est ça le problème même ce qui loolu également c'est un signal fort qu'on est que l'adversaire avec l'animosité avec l'ennemi c'est différent les gens même les leaders, leaders, politiques doivent en tirer des leçons parce que tu dis jàpp nga ni ki nek sa adversaire dang koy jappé non alors que warul nek non warul nek euh, euh, ennemi dafa war a nekk ki nga xam te moo di adversaire ki ngay kujjeel à travers de idées à travers des contre-propositions malheureusement notre société et en perte de est en déperdition autant pour moi nekk une société boo xamante ji radicalement dafa am ay changement yu ci nemmeeku parce que dañuy nemmeeku sax même nit day faatu dem ci armée yi nga gis ko yor caméra am wala yor euh, appareil téléphone am di filmer di selfie ay kamb ay gaz ay néew te loolu dafa rafetul dafa ñaaw pour man ji war nañu gën a xoolaat tëggaat suñu société bi demoon na bu ay jamono bu ñuy denc ji sax dañ daan nëbbu xale yi bu nit faatoon sax dañ koy nëbbu xale yi rien que ak li nga xam ne moom moo di comportement bu ñu yaroon sunu askan mais tey ji malheureusement la donne ak completement changé qu'est-ce qui l'a euh, changé mooy problème bi euh, tey ji société bi ñu nekk mooy société boo xamante ni xol la ñuy agiré euh, dañuy bañ nit ki dañuy wane loo xamante ni dëppoowul ak humanisme lii nag dafa war a ànd ak humanisme maanaam am humanisme boo xamante tey ji mooy li nga xam ne mooy tax ñu identifier nit parce que nit lépp lu yàlla sàkk nite ko ci gënal wala xadd karam naa ba adama nekk na loo xam nit daf ko war a respecté jox ko cër euh, par rapport ak juge Dame euh, Demba euh, Samba Sall gis nañ bu baax que le dossier bi mu yoroon dafa tàng di dossier Ousmane ko Adji Sarr mais tey jii gis nañ réaction yi ci am am na ñu jàpp ne tey jii am na ñu toogoon ci des plateaux télévisés de télévision wax ne mbir mi c'est mystique nangam sàngam tey jii loolu am Euh, day mel ne kon ñooñu est-ce que dañoo am dëgg wala déet mu nekk ay substitution yu am ñii jàpp ne feebar moo ko dal ñi ñu ci ëpp gis nañ ne neen dafa amoon problème mu foie amoon problème mu rein mu yàgg a tawat tane woon na ainsi de suite loolu lépp gis nañ ko ci au sein de sa famille ñu ko révélé donc tey jii je pense que même ñi révélé ay questions mystiques doivent répondre à la justice du yoon ñu toog ci ay plateau télévisé te loolu la presse en a à sa part de responsabilité par rapport à ça du n'importe qui la ñu war woo ci plateau yi ñu taxaw di wax lu leen neex loolu dafa war a deñ Sénégal nit da nga war a wax ci moom lu rafet yàq deru nit baaxul nga nit ki bokk leen conviction bokku leen gis-gis warul tax nga def ko ennemi mën na nekk sa adversaire mooy li ma wax sànq dañuy jaawale adversaire ak ennemi par rapport ak li am nii nag si honteux c' est vraiment déplorable que réaction bu mel ni am nit dee ngay jubile c' est te dafa ñaaw nit bu dee waxal ci moom lu rafet mënoo ko maandul loolu moo ci ëpp solo juste euh, Samba Sall nag dem na waaye aussi beneen jàngat mooy ñii àtteete ji nañ ci tiire ay leçons que le juge suprême c' est Allah le tout puissant yàlla rek mooy àttekat bu mag bi moo tax lépp looy àtte fii di nga ko waat àttewaat fa ëllëg. ak lu ñu la manipuler manipuler fexeel ba dossier bu ñu la mën a jox tranché ko de façon équitable justice juste et équitable soo ko defee que le que la justice soit rendue xëy na ëllëg kat boo toogee ci kanamu sunu borom lañ la dénkoon yaakaar naa di nga ca mën a am layoo boo ci def boo xamante ni xëy na dina la ca muccal euh, tey jii ki nga xam te moom mooy juge suprême bi di Allah di mën a yónni euh, kii di nag ab gendarme am kii di ji Seydina Jibril dem. mu ne ko indi ma mandat d'amener directement kenn du ciy bañ amul manifester amul dara dañ koy indi mooy kiy jël sa ruu te loolu kenn ku ci nekk muy atekat bi muy président bi muy député bi muy maire bi muy chauffeur bi muy taximan bi muy muy jàngalekat bi ak n'importe quelle figure bi nga doon tey jii war nga jàngate ci xam ne ëllëg sunu borom moo ko moom te ku nekk di nga dem wéet ak moom ëllëg ci penc ma ngir layoog moom kon nañu bàyyi xel ci lu bëri bëri moom gaa ñaawlu nañ nit ñi ni ñu doxalee ci kanam waroon a masawu lu ni mel mais itamit ñi ngi euh, également dànkaafu ñi nga xam ne ñooy yore dossier souvent euh, di atterrir au niveau de la justice ñu atte de façon justice juste et équitable ba ñu am benn farfarloo ta xam ne le juge suprême c' est Allah le tout puissant. a jot moo leen a xam